mais c'est dommage moo tax nit ñi bëgguñoo nekk politicien bu fekkee ne wax ji waxi wor la waxi fen la waxi wax joo wax tey nga teggi ko bu subaa mag ñu baax ñi ci réew mi ñoom ñoom am fulla ba ne kenn du leen wax waxi politique parce que yëfi caaxaan la on peut pas avoir autant de morts autant de martyrs autant de victimes autant de prisonniers sur l'histoire du troisième mandat tey jii Macky Sall ñëw di ñu delloowaat ginnaaw ci cette histoire du troisième mandat moo tax ñun ñu defar ay carte carton rouge ku nekk nag ak façon di ngay xeexe ñun ñu ne dañuy defaree ay carton rouge de deux millions de carton rouge tey responsable yi ak man ñu wàcc ci terrain bi ku nekk gox ba nga féete rien que ci Dakar on a vendu Et je dis vendu. On a vendu, parce que ces cartons rouges sont vendus à un prix symbolique de francs. Pour wan leen Sénégalais yi ni ñu jëppee Macky Sall. 543 000 543 627 cartes la ñu jaay en une demi-journée ci donc alors que 2 millions de cartes. defaguñu le point avec les gens qui sont dans les autres départements du Sénégal parce que les 46 départements du Sénégal yëpp jot nañu seen lot de carton rouge may remercier les Dakarois pour la réussite de cette opération ma gis jaaykatu gerte ja nit cent francs gerte ñu ñëw taxaw mu faj mu jox waa ji gerte gi ba pare ne ma 100 francs bi am jënd naa ko carton bi pour Macky Sall jóge ma gis jaaykatu ndox yi handicapé yi ñuy yalwaan ku teg potam di yalwaan ñu ñëw mu jël ci cent franc ci gi ne ma jaay ma benn carte parce que damaa bëgg Macky Sall jóge fi alors ñooñu soxlawuñu des dealers au palais de la République et c' est ce que Macky Sall est en train de faire ce de dialogue wax na leen ko d' ci biir wax bi moom Macky wax na ko nee amul tabu ku nee na wax li nga bëgg rek après ñun tamit ñu wax li ñu bëgg Macky Sall lu mu bëgg man a mandat waaw yow mi am sañ-sañu fekk ko ca palais boobu wax ko moom yow li nga bëgg moom amul sañ-sañu wax la moom li mu bëgg képp ku d'accord ci troisième mandat tu auras trahi les Sénégalais tu auras trahi la constitution mais nag bu mu leen jaaxal Macky Sall mu njëkk a fooy constitution bu Sénégal Macky Sall mu njëkk jalgati constitution bu Sénégal et ku ma laaj ma jox la ay firnde yu bari bi ci njëkk mooy étudiants yi nga xam ne des sénégalais bi moins yu participer woon ci concours FASTEF cour suprême daal di jël décision ne nañu leen jël intégré leen moom Macky Sall mu ànd ak Serigne Mbaye Thiam ne moo lànk ndaare defu ko waaw kooku respecté suñu constitution alors que lui il devait être le gardien de la constitution kon tey jii moom Macky Sall lii muy def waru leen bett li mu nekk di def nii ci Sénégal warul bett kenn ci yéen mais bi ma doxantoo tey ci mbedd Ndakaar bi donc on ma diro waay waay waay mais pourquoi defaloo attroupement non ñi ma àndal ñoom ñëpp ñu ngi taxaw je leur ai dit pas la sécurité ils étaient au nombre de 47 gardes du corps je leur ai leen ba bu ma kenn jege parce que xam naa leen ay saay-saay lañu ay wëyu lañu ay njuuj njaajkat lañu ils vont te dire oui da def parade wala da ngay def attroupement moo tax man sama bopp maa doon dox yor sumay carte di dugg ci biir Sénégalais yi les autres responsables yor seen i carte di dem vers les pour leur dire non au troisième mandat de Macky xeex bii ñuy xeex du xeexu Bougane du xeexu keneen. xeex la pour suñuy njaboot ëllëg nañu fexe ba suñuy doom bu ñu leen jàngal fenn parce que c'est ça la réalité un plus un égale deux amul kenn ci yéen ku mun a jàkkaarloog doomam di ko di ko gëm ne ko un plus un égale trois wala un plus un égale un loolu amul il faut qu'on soit sérieux et Macky Sall est en train de tirer ce pays ci benn médiocrité boo xam ne kenn xamul fu mu jëm chacun d'entre nous